dañoo ñëwoon tey si nii fii nii pour xool yéen commerçant yi nan ngeen gisee implantation Auchan fii ci Thiès maanaam dañoo Auchan benn place benn structure la amoon tey ñu gis mu am ñaari structure yéen commerçant yi nan ngeen ko dundee présence bi implantation bi nan ngeen ko dundee ndax am lu mu wàññi ban impact la am ndax am na lu mu wàññi seen clientèle yéen ñi di fay taxe tout le temps nan ngeen koy dundee ñu koy naqal bu baax a baax a baax baax rek ba mu nekkee benn sax xawoon naa métti sax wala bu ñu dëgaatee nekkaa na ñaar gën naa gën a métti fii nii commerçant yi yëpp muy en gros petit gros ñëpp kenn mënut a waaw dañuy day nax nit ñi rek population bi dañuy nax ñu ne wàññi nañu bagages yi te fekk wàññi ñu bagages c'est la même chose nit ñi Sénégal yi laay waxal ñoom ñoo la gëm seen bopp bàyyi français yi ñëw si Sénégal di di jënd ak ñoom comprendre nga fii ñoom français ñoom lu ñu am dañ koy yóbbu Europe ñu ngi fi bàyyi ñun fii Sénégal lu ñu fi am fii la koy bàyyi si population bi waaw. ay milliers de personnes ñoy liggéey ci commerçant yi di ñëwal seen njaboot léegi Auchan ñoom Auchan ñoom li ñu liggéey ñoom dañ koy yóbbu France millions yóbbu ko foofu. waaye man de jàpp ma ne mën naa am benn impact fii ci sunu sunu liggéey. ay taalibe lam ñun dañuy dañuy gëm rek ni ñun wërsëg wërsëgu jaam moom yàlla li nga naraam moom kenn mën la ko xañ waaye nag bu fekkente ni bii ni ci wàllu commerce la tamit. ah wax dëgg yàlla tamit boo waroon nañu mën a régulariser ba mën a ànd ak commerçant yi ay prix. même bu ñu bu ñu waxul sax ñoom nañ fi jóge mm-hmm. duñu ñu wax ne ñoom nañ fi jóge parce que dañuy jaay ñun dañuy jaay waaye mënoon nañu mën a ànd ak ñun ba fexe ba ànd ak ñun ay prix. question ngeen di jaay dafa xaw a cher par parce que ñun ñii ñëpp ñu ngi daw di dem def foofu noonu dem seen achat yi surtout ci weeru koor bi. des fois da ngay daje ak ay nit comme benn produit bu ñuy wax euh, couscous doré par exemple ñu ni la.

ñoom ñoon ñun li ñuy jaay mënuñu ko wàññi parce que buñ ko wàññi dituñ ci am dara ku xam alimentation xam nga ne alimentation fi mu toll nii moom jaay ko bon daanaka ni du dara parce que yi ngay dàq daanaka benn matière boo jaay bu ci gën kaa bare fukki dërëm nga ci dàq wala fukk ak juróom wala juróom kon donc loolu mu ne su ko wàññi. foog ne tamit euh, sénégalais bëggul lu bees wala complexe moo ko dugal ci yooyu. y a des yoo xam ni par exemple ñoom. C'est des gens complexés euh, yoruñu lu bëri mais gàddu seen chariot dem ci dugg ci au Auchan bi ça les fait plaisir te soo xoolee pouvoir d'achat, c'est minime bon su fekkee ni Chambi, bi dafa venir pour dimbali nit ñi et puis pour néew di doole yi bon tant mieux les gens on est preneurs. mais su fekkee ni c' c'est pour les produits de luxe rek non luxe moom jaru ko quoi ñun nañ dund rek. non complexe la. Sénégal doon complexe. fii nii yow li ngay jëndee fii si biki di nii. soo àggee Auchan ñoom loolu lay jaay. am maa ngi dégg sax koroog Ndoye Bane sax ko wax am koo xam daal dem ba si Auchan yi di jënd benn chips. chips bu juróom pour dañ kumpa Auchan. waaw ay sariyo ay tubaab tubaablu. di complexe. Mm-hmm. waaw xam loolu naay suul. waaw di complexe ay Auchan di puus ay puus puus. Mm-hmm. waaw ñu xam nga rek di jaay benn chips ay benn soow ardo mm-hmm. te nga bàyyi Sénégal yi fii xam loolu a am na ñu fa daan dem. Mhm. dem man man am na man taxaw naa fi sama benn client ñëw fa ni ma jënd naa benn sachet poivre bu 500 grammes. ma ne ko ñaata nga ko jënd ma 3500 francs mhm. ma ne ko man boo ñëwoon ci man ma jaayale ko 2000 francs kon waaw kon kon donc am na foo xamante ne bi ñu ngi fay nax nit ñi. te xamuñu ko.